Euh, il faut ngeen organiser débat boo xam ne justice rek la wax parce que y a <laughs> beaucoup de choses yoo xam ne véritablement moi je l'ai j'ai à le dire te malheureusement le temps ne nous permet pas on a fait presque une heure une heure voilà vraiment une heure sax xëy na du doy ah parce que y a beaucoup de mmh. beaucoup de choses dont on devrait <laughs> bon donc euh, mmh. d'abord euh, féliciter mmh. nos force de défense et de sécurité et les féliciter les féliciter toujours les féliciter oui, parce que ñu assurer la sécurité au niveau des frontières sécurité mm -hmm. intérieure mm-hmm. ñu mm Sénégal partout dans le monde aujourd'hui l'armée sénégalaise est l'une des armées les plus prisées pour le maintien de la paix partout mm -hmm. dans le monde donc véritablement nous avons une armée républicaine une armée professionnelle mm -hmm. et une armée boo xam ne àdduna bi yëpp daf ñu koy ñee donc ñu gërëm leen sant leen gën leen a dooleel ci li mm-hmm. ñu nekk ça c'est c'est c'est le premier point le deuxième point mm-hmm. moom mooy di saluer encore mm-hmm. leur attitude républicaine tey bu Sénégal stable ñuy ñuy tiitaroo coup d'état moo su fi am ñuy tiitaroo li ñuy tiitaroo c'est parce que nous avons une armée républicaine, républicaine ça c'est vrai les opposants de comme tu dis de 63 à aujourd'hui tous les opposants ont appelé à l'arbitrage de mmh. l'armée et l'armée a toujours refusé de s'impliquer dans la politique en respectant mhm. toujours leur attitude de d'armée républicaine mhm. donc véritablement tey bu ñu amee Sénégal bi ñu am ni démocratie ak loolu yëpp c'est parce que nous avons une armée armée boobu ko war di dañ ko war di cëral tout le temps de telle sorte que man Mm-hmm. en matière d' armée sincèrement du ma ci prononcé wu. Mm-hmm. je fais confiance totale à mon armée. Mm-hmm. et comme on l' la grande muette. kaawu général Kandé bi ngay wax nii. je pas les tenants et les aboutissants je cherche même pas à les avoir. je fais confiance à l'armée balaa ma ci doon mën a wax. dire pas génnee. communiqué ne lii ak lii ak lii moo xew. ma basé wu ci communiqué bi dire pas génne ma ma kii ko mais je je vraiment. man li ma gëm moom mooy paix et stabilité d'abord. Mhm. après nag lu ñuy def ñu soog ko def. armée bi ngir yàlla ak yonent bi nañ ko génnee ci suñuy wax politicien yi. ñu bàyyi leen ñoom par leur propre méthode. Mhm. ñu régler seeni problème au niveau interne. merci et je ne crois pas. Mhm. sincèrement ni ma xamee armée sénégalaise ak ni ma ko gëmee yaakaaruma ne. Euh, l'état-major de l'armée euh, violé na. je ne sais pas hein je dis que j'ai pas les mais yaakaaruma ne violé arme dans tous les cas man lu arme def dama koy supporter les yeux fermés quoi merci merci